jërëjëf yow kon xaaral say résultat ci fula <laughs> eh, eh, waay eh waay eh, maa ngi noonu maa ngi noonu kooku man la samay maam ñoo def loolu jërëjëf Kouz Baba Jité Alé Mbaye maa ngi nii Ndiku sa ndiis mu njool mi tey lan nga def tey nuyool parce mbaxal mi Ndiku da nga waxoon koy. danga koy ñulugee vin rosé. ci laa bëgg ñëw damay décortiquer mais soo la wax ay délinquant nga boole. maay délinquant bu mag bi. micro bi ñëw maay délinquant rek nga boole. mi ngi wax. ah ayca. ndike teel sa micro wax ca kaw. ah bii la bëgg. ndiko da waa waa waa jox ko. d'accord ndiki ayca. waaw salaamaaleykum da ngay téye xoolandiku fii ngay téye fi ma téye. nga daal di koy téye nii asalaamaaleykum waa senegal déggal loolu yokk leen jaf bi Bamba. maa ngi leen yokk leen micro xam nga moom dafa rax kii tuuti affaire. dafa timit tee. asalaamaaleykum yéen waa Sénégal. déglu leen ko ak dégloo maa ngi di ku ci nekk sa tur ak sant. waaw du ci jiital tonton El Hadj di la ci jiital biisu ngoone mhm. tey boo gisee tamit ñu dem ba toog fii. waaw ba togg mi ñu togg ko mu jaar yoon. Mhm. waa ceebu Zador. waa Esquine biologique. ñoom ñi ñu accompagner waa Nouroula. ñoom ñëpp sponsor leader yëpp ñoo ngi leen di sant di leen gërëm. Khadija di nuyu ñi ma euh, euh, bokkal euh, Khadija Khadija Faf Sidi yaa ma jege ñëwal nga jox candidat bu ti nekk dama bëgg nga jox ko skin biologie. Khadija di nuyu Mami Cobra. Mhm. mu jóge ba kees di nuyu Maam Ndiaye Savon di nuyu Adjimas di nuyu Pendo di nuyu Tiken mi nga xam ne maa ngi moom so waaw di nuyu sama yaay. candidat bu ci nekk sama papa tegal costume biologique ci kanamam di nuyu ñu ma àndal di maire Sawda di ñoom Fandooy ñoom Sawda. ñëpp sama gars yi mafia maa ngi leen bëgg. waaw waaw. di nuyu tamit ñi ma àndal. waaw euh, lan nga yëg ci bisu tey bi ci concours bi ñu la boole ak lépp aji maas jële sa bos ayt waaw bisu concours bi boo xoolee man maa ngi woon Gambie concours bi maa ngi woon bi waaw dama egg si tag nga gis ma dugal statut ne ñibbisi naa guddi guddi Sénégal. waaw ngeen woo ma ne ma dañ lay indi sa dépense. waaw comme li Pendo wax ma ne ah dañ may indil dépense mais naru ma ko woon jël ma naa jël. waaw boo ko jëlu tey lan la ñuy wax dañuy nekk ci TikTok bi di mbaraju te mënuñu togg. waaw am na ñoo xam ni menacé nañu. maam Ndiaye moom daf ñoo di mbaraju te mënuñu togg yéen a ngi dégg. daan na ndiku Sali Babel mami euh, mami kii maam Ndiaye daf ñoo mbalak ne maag mami Cobra ñooy dofi naan fii la ñu war a nekk di rosi di wax ay VG ak ay Babacar yee am ñoo xam ne tamit foogee ma leen woon loolu restauratrice nga restauration nga def ndax jigéen bi nekk ci kër toog ci pooju ndeyam baax na waaw jigéen bu nekk ci milieu baax na mhm. amaana suñu yaay def nañ ci ñun li ñuy def ñun ñoo të mais am na koo xam ne dafa teglaayu laay daan xale yi nga xam ne ci mbedd mi la ñuy nekk di taxawaalu ñooñu naw ma nawloo ma leen te duñ ma gañee waaw ñun mun nañ togg xam nga ñun sénégalais laaj ma biisu lan moo ñu sonal mhm. heure tubaab dane sept nga fi ñëw tubaab dane yaa njëkk pare dafa fonk heure mais ñoom ban heure la ñu ñëw ñun tubaab bu la joxee heure da ngay bàyyi ba heure bi passé Mm-hmm. man huit heures fii la ma fekk. sept heures du matin la fi ñëw ma ma def man nettoyé sama stand def sama mm-hmm. mise en place. teg sama trois bains. première bain bi ma laabee sama samay légumes. waaw dama ko rincé ak eau de javel deuxième bi ak vinaigrette troisième bi ndoy sec. xanaa loolu premièrement. ma coupé samay ongles ba mu egg. coupé say ongles gis ba mu egg. posuma crayon ma make up ma ba ma laay xale TikTok dañoo ne ma tey sa kanam gi daa géey biisu kenn xamuma akoma vulgaire ana samay piercing waaw ma dindi lépp ma leen xale yi milieu ako ñoo mun toog waaw bisu sama safa dama ko teggi fee bu ma nekkoon ma bi xeer sol sa bone alentouré sama lépp ba mu mat waaw te pere teg ci ci guddi gi lañ ma woo xaw ma nu ma amee aw ma ku ma sponsorisé woow ma kenn ñaan waaw ngeen woo ma ma leen de paylaa laa ndugg ngeen ma déedéet xale yëpp mbaxalu mbaari lañ am ma woo samay nit guddi gi ñu may ma guddi gi ma topp marché na yàlla baax na dénk sama bopp yàlla ñëw jël li ma am ak li ma ma def tey maam Ndiaye mii bu ma yëkkati woon sama téléphone ne ko Mame Ndiaye may ma damay togg barki sëñ Ousmane Mbacké nóoré ni ak sama bakkan mu may ma mais xamal la laa bëgg ñun ñuy TikTok ñun TikTok ñun tiktokers yu jigéen ñi ñu bàyyi tey bu Mamy Cobra live ñu nekk ci TikTok bi jël la Mamy Cobra wax dagg photo Mame Ndiaye ne ko Mame Ndiaye kaay tontu. Mame Ndiaye jóg ak àll tontu. Tiken kaay wuyu li leen di ko wax ñun ñëpp ñoo far ñun ñëpp avant TikTok a xew xamante ne ñun ñëpp. xam nañ fu ñuy tase xam nañ groupe WhatsApp. mais bu ñu yàqante àdduna amul solo suba ñooy àndaat suba ñooy àndaat ku ci weer sa morom danga koy weer de wala nga li ma la xamal mais doo mus wax li nga ko xamal ci réseaux sociaux. ndi ko sigil ca kaw bul jooy man bëgguma kuy jooy parce que du ànd ak kuy am defet mais àddina amul solo yal nañu fi yàlla bàyyi ñun ñëpp ma ne yal nañu fi bàyyi ñun ñëpp voilà ndiku bul jooy fi kenn du jugé kenn dëgg la dafa wax dafa wax lu am solo ñiy wax ñëpp li ñuy gis ak li ñu gis ci yow rek la ñuy wax merci beaucoup bu ñu la xamoon dëgg li ñu la mën a waxal lañ lay waxal waaye xamuñu en tout cas yaru kenn xamul kenn ndeket xaw ma lu ko mën a dal mais yaru na xam nga ku yaru fan nga xamee bu ñëpp toogee. waaw barke Alaaji Malick yaru na lool millier millier xaw ma nitu millier man mi nitu millier laa yaru na torop mais yow mi ku yaru nga. parce ñun ñëpp ñun ñëpp nak si banlieue bi lañ juddoo ah. ñun ñëpp Dominique lañ juddoo. Xaara Sali Babel ñëw du ma du ma juger kenn. Mhm. bëgguma kenn di néewal kenn doole. Mhm. wala kenn di xoolee kenn benn bët. Mhm. ñoom ñëpp ku ci nekk maa la yóbbul sa dépense ànd ak ak sponsor yi. ñu teral ma ñi may ma ay mbubu ñi daanaka li ñu leen jox dépense teralee nañ ma lu ko ëpp di dem. parce que ñoom fu ñu dajeeg man noonu la ñuy def mais bi ma demee ko ñoom ndikku damaa jooy. danga ma woo ne ma ne ma fii. def waaw li tax ma jooy mooy moom affaire yi foo la ko jàppee jékki-jékki na ne foo leen nekk foo leen toll damay dem ma ne ko xaar ñu ndikku ñu ngi ñëw ma insisté. Mhm. bi ma ñëwee kër maamam laa ko fekk. maa ngi fekk maamam ci buntu kër gi. bi ñu yegsee ba ma taal micro bi ba présenté wu ba wax dafa jooy nee na moom seen waa kër ay murid lañ xamuñu sax lii. dëgg la mu ne yaayam li mu daj ci moom di ñaan pour ndikk correct mel ni mu bëgg mu mel ko yàlla na dund ba ko yaayam. amiin na mel nit ñëpp. direct la dañ ko ñaanal yàlla defal ko sutura mhm. defal ko jàmm mu dund ba naan ndiku moo ubbi boutique bi ndiku la ñuy takk tay moom la ñuy ngénte noonu lay demee bi ma yeggee moom bi mu waxee dama jooy sànq bi mu tuusee ba dugg damaa jooy parce que man dama sali ndax wóolu nga ma ci noonu la am dama sensible wóolu nga ma ci wóolu naa la ci ndiku noonu lay demee te moom mi doxal ma mi Cobra te moom mi bëgg na tubaar fakal la macha allah mel ni moroomam mi mel parce que bëgg na noonu lay mel daf ma jooyloo keroog ndiku jërëjëf sali kontaan naa sali ci seede boobu mu def effectivement Baabel ba mu fa jógee ci saa si la woote dafa ne ndikku dafa jooyloo ñun ñëpp ñuy gërëm am bongo bu baax a baax parce que am bongo moom it moom moo àndoon ak Sali Baabel yóbbu li nga xam ne moom mooy dépense am ak groupe am yaay lan nga wax ci mbaxal bi <laughs> mosuma jooy ndax da maa tëkku ma ñëw rusulu dog mami ma Fall ndax xam na ceebu démb maa ngi ñëw ci ma teel a ñëw tamit yow man damay wax alhamdulilahi rabil alamin di sant yàlla sant yàlla julli ci bi alayhi salaatu wasalaam ndax lii ngeen def fii ngeen toog ak li ngeen def ak lii ngeen di waxante dal na sunu xel nuy seen maam di seen yaay yàlla bu benn seytaan dugg seen diggante ni ngeen ànde yàlla na seeni doom ànde noonu yàlla na yàlla jubalee nag seeni borom kër ki ci amul borom kër yàlla na ko am te ba ko amee yàlla na ko yàlla jubaleeg moom lii lii lii bisu ngoone li nga def ko tukkuloor ku doon yéeme borom jigéen ñi lii nga def lii lii lii xale ànd ko yow maa ngi lay giñe seex Saliou Mbàkkam Serigne Touba ñi la man sooda ma mac ci bëgg bàkk seen mbàkk soxna loo doon benn xaritoo di ànd di waxtaan kenn ku ne yéene sa bopp la nga yéene sa morom kenn ku nekk yéene sa morom première jël ndàdde ba boo jooy da dala sunu ñu sunu wàllu wéy na man ñi ma doon maaseel maa ñoom a ku ci ñuulalul boppam bi nii lay mel ñun ñëpp ñun ñëpp yàgg nañu tey buñ toogee dañ leen di wéttali rek di di di di dundaale ndax yéen la ñu am yéenay suñuy sët waaye lii ngeen def yàlla na ngeen dund ba seeni doom di ko def na ko ñëpp roy na ñëpp ànd te gis naa ci xale yi léegi seen mbootaay yi seen àndandoo yi seen doon benn yi yàlla ko yàlla yeggal ci barke Alaaji Fàllu barke sëñ Màkke Mouhamed barke sëñ Saaliw yow nag dan lay beral sa ñaanu bopp yow bisu ngóone mi doo bisu ngóone bisu tout le nga bisu ngóone non non non bisu tout le monde nga nun mag ñi da nuy seet te boo ñëw di nu seet si doo bëgg nu wax ko du ko yëg dangay ngay toog rek sa timis oto bi gaare xale bi wàcc <laughs> wàcc bay dem wàcce lu la nga ko jox loola te bañ ku ko wax daal di ma ni fan la ndey mbay jiin ma jiin ma dëkk kenn ku nekk bu demee sa morom day laaj sa turu morom te du wax kan ma ko jox ba ma ko dajjee ba ca biir laa fekk ca biir ca ca ba bii su ngóone xam nga loo ko duggee bañ ma am problème mu kan moo ma ko jox yàlla nag day fay bor yal na leen yàlla jàppale nii ngeen ànd nii ngeen booloo nii ngeen doone benn yàlla bu ca dugg seen diggante yàlla na ngeen dund ba seeni doom di ànd ana ko Cobra bul jooy duma jooy yaay Aïcha Mamy ñu ngi lay jaajëfal nga juge ba cees démb nga ñëw ndugg si ñu gis nga wàcc marché Tilène euh, ndugg fa ndigg mu riche wàcce marché Tilène ak sa orchestre marché Tilène ñëpp génn nga defaat beneen communication bu bokk ak bi nga xamante ne moom la ñu la sant nga jóge Thiès démb ba tey jël sa appartement sonaloo kenn yow fii kenn ku ci nekk mënoon ngaa nekk këram man mii mënoon ngaa nekk sama kër comme mënoon ngaa nekk sa kër yaay fàttun tey lan nga xalaat ci bis bi tey. Bijou